waaw ngañ xanaa tey <laughs> meeting Amadou Ba bi zéro heure la war a démarrer actuellement vingt heures moins ah léegi vingt heures jot te xoolal instant li fi nekk ci dara dara nekk fi jërë ngeen jëf mbokki yi ñoo ko gisandoo dara dara amu fa moom Amadou Ba mi woote woon niki tey jële foofee ca terrain ACAPES foofu la ca parcelle moom Amadou Ba gis na ne nag kenn teewul foofu la ca moomi leen ndaje moom Amadou Ba niki tey jële woote woon fa gis na ne nag nit ñi dañu ko boycotté kenn demul ca wooteem boobile moom amadu Ba mbir mu nu nag di wéy moom Amadou Ba mile rek fan la nara a ginnaaw fa nga xam ne nag moo di ab goxam la woote kenn wuy jugul moom Amadou Ba mile bu solew dàllam dugg ci askan wi ndax nag kenn dina ko faale moom Amadou Ba nag jamono jile mën nañu ne askan wi dañu ko bàyyi ndax nag gis nañ ne daal moom Amadou Ba mile fépp fa nga xam ne woote na nit ñi duñu dem moom Amadou Ba kenn faalewu ko di candidat APR bile kenn teewul foofee nga xam ne nag fa la woote woon na di terrain ACAPES moom Amadou Ba candidat APR bi la nag mi ngi wéy di jaaxle ci askanu Sénégal ni ñu ko wanee ginnaaw moom Amadou Ba mi nekk kandidaa ci élection présidentielle yi ñu dëgmal moom Amadou Ba mi la nag mbir mi la bu gënee wéy nag mbir mi nag dina gën a ñaaw ndax gis nañ ne nag jamono ji daal askanu Sénégal nag wan nañu ko ginnaaw bu baax a baax ndax nag moom Amadou Ba foofu la ca goxam dañu ko gën a dëggal ne nag wan nañu ko ginnaaw bu baax a baax